tey li ñu ñëw dañu ñëwoon si suñu papa euh, imam Daat euh, di sàkku ñaan ci moom gannaaw ba ñu demee julli ji jumaa ba pare ñëw fii ndax comme ni ñu xamee Sénégal mooy suñu réew te euh, bu ñu nee jigéen jigéen lépp lu muy ñaan rek ci jàmm lay doon parce que moom moo jur te lu am tegu si kawam rek moom mooy gën a sonn donc ñuy sàkku ni ñu ko sàkkee si imam Daat suñu papa suñu sëriñ mu ñaanal ñi ñu ngi koy sàkku si benn kilifa bu bépp kilifa bu nekk ndar mu ñaanal ñu ndax Sénégal soxla na ko mu ñaanal ñu ñaanal aussi suñu président Sonko bi nga xam ne moo tax ñu teew ñun jigéenu Pastef. ñu jigéenu Pastef Saint-Louis ñu ngi taxaw jàppale ko ñu ngi ci ginnaawam jàmm nag ñuy ñaan yal na ci suñu borom tuur ndox bu sedd guy yal nañ toog ba ne alhamdulilahi rabbil alamin ba suñu président dugg pale ñun loolu la ñuy ñaan yàlla waaye setal fuñ koy toroxalee te ñaanuñu ko yàlla waaye bu bés bàyyit lu mu laaj ñu ñu ñëw taxaw xamni jigen jigéen talaatay ndeer ñu ngi fi Aline cité jaata ya ngi fii Yacine Boubou yaa ngi fii waaw te lu mu laaj rek ñu taxaw lu mu leen jaral benn jaral ñu ko ba mais nak li dafa di lo xamante lu upp suñu loxo moo ku nek il faut mu wax te li ñu war wax fi duñ ko nak nak ndax lu ñu metti la ndax lu ñu der bu bon bu ñu jël bu ko solal Ousmane Sonko ñun duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëllëg duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Dakar sori na waaye su fekkoonte ne tey la fii la dinañ xam ne fii di gën Saint-Louis bañaluñu Ousmane Sonko dara ndax moom moo moom moo ñu moom moo ñu bëgg te nit ku la bëgg moo la sonal ku la bañ noppal na la mais nag moom moo ñu bëgg si biir xolam ñun tam ñu bëgg ko suñu biir xol Macky Sall dañoo bëgg na dellu ginnaaw mu xam ne lu muy teg ci der euh, président Ousmane Sonko amul ñëpp séede nañ leen li mu ko tegal dara amu si dara amu si ndax affaire politique kese la moo tax ñu koy tuumal tuumal boo xamante ne nekkul si moom ndax Ousmane Ousmane Sonko gor la mooy sëtu Arafa Mbessi Sonko Arafa Mbessi Sonko ku ko déggul xam na kuy Arafa Mbessi Sonko Casamance boo demee teen ne Arafa Mbessi Sonko rek ñu la ah Ousmane kooku de gor la kon nag liñ ko teg tey ñun metti nañu trop te ñu ngi ñaan yàlla na yàlla nañu yàlla teggi nattu bii Ousmane Sonko yalla na yàlla leeral lepp lépp luñ koy tuuma rek yalla nak yalla leral yalla da indi jamm ci euh, rew mi loolu la ñuy ñaan. sal war na gis ni premier pas yi ñuy def jamm rek moo tax ñu def waye nak tay bu yegsee ba bëgg ñu tégaat ci yoonu xex bi su boba nak dañuy wacc taxaw jàmbaarloo ak mom parce que la preuve ané que moy gis nañ fi tay ni mu def Khalifa Sall. def ko fi Karim wad ta da nan ko ñun président Sonko du Khalifa Sall ni Karim wad kon du ñu mëna a nangu tey aussi mu bëgg ko paqueté non tey daf fi taxaw moom bu xoolee gis ni nun ko fi fale woon tey war na am ngor bu day naka tey rek mu cédé la place ci jàmm ak salaam jox ko président Sonko mi nga xamante ne daf fi leer bëggul benn ay lu dul jàmm ak salaam la fi ñëwee kon dañuy ñaan daal moom mu xoolaat boppam xoolaat réew mi nag bu xoolee réew mi rek xam ni fu mu toll nii ah ñi ànd ak Sonko bëri nanu de te jàmm la nu woote waaye bu fi indeewaat leneen dana metti fu mu toll nii te yaakaar naa ne ak Covid bii war na tal leneen lu tey di fi indi injustice bu mel nii parce que Sénégal tollootuñu foofu tol li ñu toll moy mu génné nit ñi su guuta gi mënu ko def na fi lim fi def mu def lim mandawam liko li mu cédé place bi nak président Sonko ndax ñun kër jeunes fu mu toll ni taxaw nañ ci te wane na momit lu leer nañ tay limu wara liggéey ak ñun kon tay su bëggé indi lénen rek day metti réew mi taxaw da na tal nañu lénen lu dul lool ñuy woté si jamm ak salam daal di ñaan mu xolaat bu baax limi def daal te bayyi xel bu baax timit ni eh, gaay yi yaangi taxaw surtout les jeunes nak jeunes yaa ngi taxaw de dañ leen di dàmp nii waaye fu mu ne nii moom yegg nanu de kon na xool boppam bu baax daal li muy def